sàkku bi nag ñu ngi koy kayma ci kaalis loo xam ne nii ñii ñu naa na mën na 6 millions ñii naa à peu près moo fi nekkoon. tàkk-tàkk bi nag ci kaw yoon bi la jógee heure bu ñuy ñëw ñun 5 de matin lañ fi ñëw gis affaire bi de takk xale yi doon fanaan fii ñu ko doon garder dañu seen rek affaire falaam bi jóg ci kaw fekkee ñoom ñu ngi toog côté bii nii affaire bi dafa kaw a léegi nag bu ñu wootee dañu woo ñu ñu tam ñu daw ñëw matukaay nag koo xam ne da ngay góorgóorlu mataloo matal sa bopp matukaay yëpp matukaay yi moo wut nañ ay barigo wut ay gardien mais loolu yëpp doyut problème bi moo ne ñax moom su lakkee gaay na xam nga ah, barigo ndox wala paanu ndox mën koo fay